xam nga virus su ma yoree sama sama loxo virus bi nekk sama loxo ma yor kaasu ataaya bi dama ko si bàyyi yow boo jëlee naan yow tam da ngay téye sa loxo ak kaasu ataaya ba da koy da koy jël donc noonu lay demee. jokkalante boobu jokkalante boobu mën na nekk mën na indi wàllante bi moo tax ma ne fi toll nii comme ça kenn xamul kan mooy kan te feebar bi xëy na euh, dañu ñaan yàlla mu yem fi mais am na nu muy évoluer également foofu la jëm donc nañu nañu changer comportement yi.

am na ay effets parce que fe amul médicament boo gis ñuy utiliser te amul effet secondaire chloroquine am na ñu ko doon naan di si xaru ay jamono. Ah bon si jamono yi muy yi muy bëri am na ay xale yu jigéen ñoo xam ne dañ dañ daan naan di si xaru bu ñu amee problème dañ ci naan lu bëri cas yooyu am na ça veut dire que médicament boo mën di gis poson la boo si jëlee dose bu yem mu faj la mais boo si jëlee dose bu bu bu bu muy toll daf lay daf lay daf lay daf lay lor et pense que chloroquine mais euh, pour man effet secondaire bi nga xam ne moom ngay siy jël à dose normale c' est c' est minime wax dëgg yàlla et loolu moo tax ma ne la euh, principe bi mooy bu fekkee dañ ngay doser bénéfice risque bi bu fekkee yow am nga bénéfice pour jël chloroquine bi nga xam ne daf lay daf lay mën a coronavirus alors que soo ko jëlee à dose contrôlée sous contrôle médical risque bi demewul noonu je pense que loolu médecins yi mën nañ ko utiliser et je pense que professeur Seydi bi nga xam ne moo nekk maladie infectieuse du chef de service ba moom au moins jël na responsabilité topp professeur Raoul si si si encadrement chloroquine boobu mais ce qui est essentiel mooy li ñu ci wax sànq rek nañu fexe ba encadré ko ba mu bañ a nekk une consommation voilà comme ku mu neex dem jëli rek consommé du loolu parce que automédication lay nekk bu baax te loolu également baaxul fexe également que ba pharmaciens privés yi parce que ñoom tam ils sont de santé publique docteur ñaa wax na ko ñu mun ko am également si seen officine mun a fexe yeneen maladies yi nga dañ koy soxla pour leneen

mën na faj coronavirus si base étude bu mu def si 24 malades te dégg naa sax tolloon ci na ko si 80 malades actuellement nii te mi ngi am les mêmes résultats mais xam nga man dama jàpp ni xam nga lu lépp luy médecine da ngay évaluer bénéfice ak risque bénéfice bi mooy ban bénéfice ngay am boo jëlee chloroquine wala jëluloo wala ban risque mooy am boo boo ko jëlee wala jëluloo mais bu fekkee am nga tuuti bénéfice bu fekkee soo ko jëlee mu fajal la feebar bi

maintenant encadrement encadrement boobu nag moo ci am solo moom la docteur Amath Niang di wax léegi waruñu ko bàyyi si marché bi ku mu neex dem jënd ko jël ko wala nit ñi di ko jël di ko di ko téye seen biir kër yi yaakaar ni bu subaa bu ñu defee coronavirus daf leen ñu daf leen ñu faj wala également parce que li mu wax nii am na yeneen feebar yoo xam ne nit ñi dañ ko dañ koy am di ko utiliser lu mel ni rhumatisme polyarthrite yi wala lu mel ni ay lupus yooyu ay la yoo xam ni chloroquine dañ ko siy prescrire te bu ko nit ñi jëlee jënd ko seen biir kër maladie yëpp ko soxlaa dootuñu ko am. dañuy ah, bañ daal nit ñi daw song euh, pharmacie yi jënd chloroquine boobu denc seen kër di xaar ku feebar ñu jox la ko. mais mais tu m'excuses ah directeur. waaw foofu aussi am ci benn kii. et là aussi damay interpeller toujours l'autorité politique. Mhm. par rapport à fraction bi am fracture bi am. Mhm. ci entre le secteur public et le secteur privé. aujourd'hui bon je ne peux pas révéler parce que euh, am na ci loo je préfère le garder poser ko fu ñu ko war poser mais aussi la disponibilité garab au niveau du secteur privé aussi c'est important et qu'on fasse quand même la confiance aux pharmaciens moi je dis bis mm-hmm. bu aussi on va faire une circulaire pour mieux mieux inviter nos confrères pharmaciens à être beaucoup plus regardants du gën euh, par rapport à la dispensation de ce produit en tant que tel comme ça a toujours été le cas ah, mais y a ay malades am malade ay malades corona mais garab moi il li leen léegi aujourd'hui ñu ngi wër fu nekk pour di ko am. je pense que non seulement war ñu ko saase mais aussi le secteur privé aussi daf ko war a disposer parce que amna malade yo xamanteni ne ni ci secteur bobu lañuy dem pour diko ko et je pense que ni mu wax. xel ñaar su dal gu génnee ñom ñu téye ko PNA lu ni mel bañ leen ci dugal. bon en fait y a des détails yo xamni moi je dis en tant que responsable aussi euh, du ci radio lay tok di di di di dénoncer quoi non c'est pas mon rôle. damay pré j'ai l'impression que da nga am flair. Non, du parce que je suis. Je gère aussi bien les deux secteurs. Mani public, mani privé. Mais demain, aujourd'hui, dès Souba, il y a des pharmaciens qui m'ont appelé pour me dire que c'est des malades qui sonal mm. pour que nous avons ce, ce, médicament-là. Parce qu'ils sont sous traitement avec ce médicament-là. Mais maintenant, si le secteur privé n'en dispose pas, les maladies, ils souffrent également. C'est un autre problème. Donc il faut que l'équilibre, il faut que nous créions. Et je pense que nous allons nous permettre quand même, nous Maintenant, risquer d'éviter, parce que c'est un médicament qui doit être utilisé sous surveillance médicale. Mmh, c'est très important parce que FMI est entraîné de nous. Mmh. donc non c'est par rapport à l'action médicament tout médicament dafa am. action bu muy mmh. maintenant et comme dañu ci phase test et c'est très important ça docteur wax le professeur Raoul Didier Raoul aujourd'hui c'est un c'est kuy tok di tiim ay malade 24 heures sur 24 quand il effectue un traitement dana mën observer l'effet du médicament sur les patients man ci am également résultat yu clair donc wute na ak koo xamante ni da nga ñëw rek jël jël garab bi genn ci mbedd bi dem sa kër diko jël et ces effets là qui va les contrôler qui va les gérer c'est extrêmement c'est extrêmement grave donc voilà en fait des questions yo xamanteni maintenant ça évolue et dinañu parler. ko mënuñu ko nangu dans le xam chloroquine xam lu mu parce que garab moom dafa nekk nekk poson si dose boo xam ni solution ak sax xëy na gars yi dañu ko ci dugal rek mais ndoxu saabu ak raxasoo eau javel. waaw waaw je pense que loolu également baax na. cest à nit ñi également bu ñu dugal seen bopp ni gel gel solution affaire mel noonu même bu ñàkkoon tey jii nañu dellu si raxas loxo yi ak ndox ak eau de javel ak saabu et je pense que également parce que doomu ah les gels ak solution utiliser d'habitude ci milieu hospitalier wala des cabinets wala des officines nga gens tout le temps personnel ont duñu am jot dem di y a pas une action meilleure amul action bu meilleure bu gën bu gën na nga dem raxas qui vous maintenant si am taamu ci parce que également la peau l'épiderme madame, li nga xamante dafa am couche ci biir yaram la ci ainsi de suite dafa am lu ñuy wax euh, euh, caractéristique physiologique xam da peau donc li ngay utiliser vous gel c'est parce que la solution hydroalcoolique mooy njëkk dafay gaaw a évaporer contrairement au gel et là on te demande exactement composant yooyu da ci a am élément hydratant pour xamante ni nii maintenir les caractéristiques de la peau pour que effectivement du yak yaramu dom aadama bi moom waral ñu ci demandé également saabu yi nga xamni ne nit ki da koy jël aussi mo am saabu yo xamni ni nii dafa am de la glycérine am fay intervenir en tant que hydratant de la peau donc loolu maintenant ndox mom mooy hydraté ndox mom fo dem amna fa je pense que nit ñi delluwaat ci raxas raxas seeni loxo fomp ko ba mu set ak sabu mo gën yomb que ñepp mëna am le gel hydroalcoolique mais le gel euh, la solution hydroalcoolique et de ce point de vue dana prévenir les risques de contamination li nga xamanteni ni contact parce que virus bi nekkee ci loxo doomu adama ci loxo bi en tant que tel amul problème bu fekkone rek fofu lay yem mais nit dafa am ay réflexe yo xamanteni mënu ko ñak digënté mak bopam laal toxuñu toxuñu say bakkan sa gémmiñ ki ngay laal également Mon moo tax léegi mu lay expliquer la propension contamination exponentielle bi nga xamanteni virus bi mu ngi koy dox ci aduna c'est parce que contact moom doxut doomu aadama yi ñooy dox. donc exactement toog bi nag li koy waral mooy boo toogee di raxas correctement sa loxo du nekk en contact avec ce virus là parce que une fois que nga nekk raxas bu set donc y a une action virusique boo xamante ni virus bi dootu ci mën a propager wu si sa loxo ce qui fait que donc soo doon laal ces muqueuses du ci am problème donc looloo waral la stratégie ñuy développé contact bu mu am wala bu lu amee ba am aussi boo ko defee na nga dem raxas loxo ba mu set donc là aussi c'est important matériel bu am sa loxo li ci mel ni jaaro lu ci mel ni montur wala lam da nga war a dindi léegi man amoo ko mais dama doon xaaral ma fàttali leen ko balaa ñuy commencé léegi su ma jugee ma sotti sotti ndox nànk tooyee sama loxo yi léegi su ma tooyee sama loxo ba mu tooy xëpp mu jël sama saabu léegi xam nga tooyal naa sama loxo ak saabu léegi damay damay bomb ci kanam loxo yi ci ci tànk yi da ngay bomb toujours bay bomb da nga da nga gis naa juru yàkkamti nga bomb bomb bomb soo bombee ci kanam après nga bomb ci ginnaaw loxo bi. nga bomb ci ginnaaw loxo bi ba pare nga def nga def nga jël beneen loxo bi nga bomb moom soo paree ci bomb loxo yi nga jël baaraam mag bi nga bomb ko moom moom da ngay da ngay tourné beneen baaraam bi nga bomb di tourné léegi soo paree ci baaraam bi nga ñëwaat ci digg loxo bi mais ci ci kër kër yi bu dee da ngaa am ay we da ngay jël sa ay we nga nga bi bu amoo ay we mën nga lem sa sa baaraam yi nga dugal ci biir comme nii nii après nga yëgal sa loxo ci kaw te nga dib jonj nànk nànk rek soo paree nga defar noonu ci beneen loxo bi léegi soo paree nga xool wey surtout surtout ñi nga xam ne seen wey dañoo gudd ñu jël seen temps dugal si biir ñu sakkati sal bi ki nekk lépp man see man amu amu ay way guddi mais baanaam boo xoolee am na weer ma gis sama temps ma dugal ma jonjo comme ça du ci comme sa nii jël sa temps parce que damay signalé que ni raxasu jërul waru nekk lu ñu yàkkamti donc nañ gis suñu temps lépp du koy def ndànk par ndànk léegi bu ñu paree mën naa xam ne def na mën naa tooyluwaat mën naa raxas sama loxo yi facilement nànk nànk rek léegi ci sot sot tamit moo moo ngi pees ñoo bokk ni nga ko defee woon boobu ngay defaat da ngay bomb ci kanam soo paree nga di ko bomb ci ginnaaw après beneen bi hmm. léegi fii nag day am taxaw seetlu boo sottee ba ba pare euh, dangay ngay bul fomp sa loxo bul fomp fomp sa yére yi bul fomp ci bu setul utal musaab bu nga fomp nga fompoo ci comme man par exemple am naa mouchoir da ngay génne benn nga fomp léegi bu fekkee ñi nga xam ne dañuy raxasoo ci robinet te fekk ñu ñu tëj seen bopp robinet bi nañ jël musaar bi ñaar ko tëjee robinet bi buñ paree ñaar koy sànni donc donc lii laa ne woon xaaral ma ñu laayante ci biir naka la ñuy raxasoo loxo maa ngi leen sant maa ngi leen gërëm wasalaam